ñu déglu àdduna suñu borom xel leen àjjana fi daw si te yéex a ñëw on ensemble dans la magie de Baba Show et les sportifs l'actualité en compte li ak la ñu fas yéene waxtaanee Bamba buteur kii nag di Hervé Renard qui s'éloigne du Sénégal ak aussi le FC Barcelone bi nga xam ne nag gars yi voici le nouveau trio ils ont humilié le Real Madrid La boobu nag nga donc donc Luseyni Ndiaye ça ah, fait dégager. encore une fois du tabb comme on est man of the match il répond toujours présent va dire sa septième coupe d'Afrique des Nations c'est phénoménal le capitaine de cette équipe du Sénégal mon ah, mon nga non, ne noonu ay a dafay Sénégal ñëwaat mon ni Nino Diatta également ñu tabb ko mu nekk meilleur joueur hein donc ci li nga xam ne mooy donc lii di euh, Coupe d'Afrique bi un jour aussi un élément sûr de cette équipe nationale du euh, Sénégal Nino Diatta donc fierté la hein, di ko gis aussi moom muy évoluer à ce niveau mais aussi il nga a donc classico Paris Saint-Germain ak Olympique de Marseille demain lay am donc le Paris Saint-Germain ak wa Marseille euh, match pour aussi nak comme bou Barça bi a ba bokul mais ñoom itam ay ennemis lañu ay ennemis jurés la le FC Barcelone et son trio gagnant Lewandowski Lamine Yamal ak Rafinha hein, la LRL LRR mu ngoog ah, def LRR mu ngoog ce ah, qu'il donc Lewandowski Lamine Rafinha day explosé humilié au Real Madrid. 4 à 0 avec un doublé donc de Robert Lewandowski, le meilleur buteur du championnat espagnol, accompagné de la le plus jeune buteur du Classico, de l'histoire du Classico à cause Rafinha, le meilleur joueur actuellement du championnat espagnol, sans aucun doute, qui n'a qu'à dire Mbappé, le meilleur joueur en matière de hors-jeu, ben duel am ben dribble réussir du match 8 hors jeu, 0 but, 0 passe décisive, 0 foot obtenu, 0 centre réussi. qui est le Mbappé ñi nag nee nañu tamit Birmingham moom ah Birmingham la léegi ah mais moom fi mu ne nii ah, Birmingham nga parce que tellement moom euh, quoi comme je dis et comme encore une fois rek maa ko wax benn vidéo ne leen liñ ko reculer loolu moo ko indil difficulté yi nii kii nag di Gavi moom ah, rapidement gars yi moom ñëw na kaañoo ki nga xam mooy donc kii di euh, moom ah, di euh, donc Vinicius moom Gavi moom yu ak Vinicius da koy kaañ ñoo ñun quatre lañ leen quatre gis nga <laughs> ko quatre lañ leen daal di. dugal di na résultat bi wul li nga xam ne xew ci terrain bi ah loolu la wax léegi nag yéen supporter Real ak supporter Barça yi ban ba xalaat ngeen ci am joxe leen sa xalaat ndax moom euh, ñi ñi ñi dóor tey mënuñu wala boog euh, nu mu demee noonu en tout cas daal je vous laisse voir kii nag di Neymar nee na visca Barça vive le Barça donc mu ngoog l'ancien joueur également du FC Barcelone Neymar qui a toujours le cœur du côté de son ancien club nous publié euh, plutôt commenter la photo de Rafinha mais aussi bu Rafinha en matière de statistiques il est pas il était partout le joueur de 27 ans Gizgenko. nombre de tirs cadrés passes clés récupération de balles 2 sur 2 passes réussies 21 sur 30 70 de passes réussies pour Rafinha ngeen gis 70 ah, passes dribble réussies passes clés tir cadré ah, il est phénoménal il est phénoménal Rafinha sa présence également il donc détail si performance pour Rafinha fin ni mais aussi le hitmap map booking ki donc également le joueur euh, de 17 ans Lamine Yamal hein, tir cadré 3 sur 4 passes clés 3 sur 3 récupération 5 sur 5 passes réussies 26 sur 35 il était partout et nulle part qui a Lamine Yamal 74 de dribble réussi hein, mon passe clé tir cadré ma donc il a encore quelques déchets yoo xam ne améliorer mais il est toujours là Lamine Yamal yamul benn et aujourd'hui également du côté de qui euh, nga donc Angers qui euh, dit Ahmadou Bamba Dieng ah donc Dougol na tey hein, Bamba Dieng mais nga xam ne naag naag mi ngi ñëwaat cinq jours pour mon boy bi voilà bu ko gëmee dellu Bamba Dieng pour moi c'est un attaquant clé pur attaquant boo xam ne mun na apporter dara Sénégal mais aussi qui mooy donc euh, ndeysaan sama joueur a ngi nii de waaye il bi ñaan Ibrahima blessure moo chat chat moko top la chat laf cat mais un jour bo xamné il est exceptionnel génération foot ba FC Metz et tout diko fier fier la man sincèrement moom bu ma ko gisee même am parce que dama xam fi mu jugee boy xol blessure mbéeg lolu té c'est que moo c'est un véritable bosseur Everna malheureusement xamna ni ne ñi ko doon bëgg mu ñëw Sénégal di ngeen xawa am leen naqari mu Everna dellu na du côté de l'Arabie Saoudite hein. il est redevenu le nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite xam nga xaalis ko xaalis dafa am doole de ngeen gis ko noonu les amis li moo nekkoon information yi leen bëggoon jox ci Baba Show di ngeen a wax ngeen wéy di like wéy di abonné partager vidéo yi également ba si cloche de notification bi su baaxee ci la mën suñu fajee ngeen